ndax ñun ngeen takk di jiital nuyoo bi sëriñ Mouhamadan moom Cheikh Abdou Lahad njaboot sëriñ Touba gi fi teew yëpp ak bokk yi fi teew yëpp taalibe yëpp ñëpp di nuyu monsieur gouverneur ak euh, autorité yi mu àndal di nuyu monsieur le maire ak équipe municipale bi mu àndal xam na ñëpp suñu nit yi bokk lañ di nuyu dëkkandoo yëpp délégué de quartier yeeg chef de village yi ñëpp bi ñu santee yàlla jullitam bi sallallahu alayhi wa di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul ñu nu may ñu taxaw fii kon nag wax ji bi koy tàmbalee ci turu kii Serigne Touba ci lañ koy tàmbalee mooy Cheikh Mamadou Mountakha muy sunu lépp tey ak ëllëg di sunu kilifa di sunu kiiraay di lu lépp moo joxe ndigal ne na ñëw fii kon nag ci turam lañuy waxee Serigne Cheikh nee na kon mi leen di nuyu di nuyu bokk yëpp di dalal ci saam saam nag tur yi bari na fi ñu saam bari na waaye kii mooy saam kii mooy dëkkub maam jaar bi mu sañcoon lu ci mën di aju ba fu mën di dëkk at mu yeme rek kii mooy cosaan bi maam moo jaar moo ko sañc ci ndigalu Serigne Touba ci 1888 Serigne Touba jógee Touba ci sant bi njëkk ba ñëw def fi xalwatu juróom-ñaari fan léebu ko rëdd jàkk ji nga xam ne moom la Serigne Cheikh Abdou di defar tey kon fii ba ñànke ba Mbàkke ba Mesere ba euh, Bustaan suuf Usmaan moo jaara sumu gor dëkkoon ci dëkk bi fi ak njabootam njaboot yi fi féete woon nag ñëpp jaar ñu bari jaar nañ ci waaye sëñ Baara Kuré ji ko fee féete ginnaaw bi la sëñ Abdou Latif doon ñëw ngeen xam ne daal saam ab dëkk la boo xam ne sëñ Touba da koo ko Mamoor Jaara njaboot sëñ Touba gépp it fedd woon loola di ko dox ak ñoom sëñ Abdou Lahad Mbacké ca mag ga ak euh, man gaa jiite bi waree bi tabax waree tabax daara ji université bii dafa yónnee sëñ Cheikh moom sëñ Bara Kouré ñu ne ko damaa soxla woon fii mu ne ko yaa moom lépp loo loo neex def waaye waaye ginnaaw nag la fi nekkoon rek laay dundal kon lu ñu ci mos a def ba kon nga xam ne kii suuf Mamour Diarra njaboot Mamour ñoo fi dëkk ñoo ko moom lu fi ngi koy defal kon nag monsieur ñoo ngi leen di dalal jàmm ci suufu sàmm di sant bu baax it nag ci bi ngeen séddee séddale te fàttewu leen ko ndax fii rek la na am ndax ku séddale fàtte la limaaléwu la te li limaaléwu rek nawloowu la kon alhamdulilah rabbil alamin bi ngeen limee bëgg nañ daal comme ni ngeen ko waxee des enclavements wala tax des enclavements certes mën naa am mais nag fii li muy jege ak pencum sa yab la ci bii 400 mètres rek la mais ba taxoon tey doo a jàll da nga wëri sori te sëñ Ba la projet 30 bi 600 mètres mais bu tawee doo dem ndax ay jéeg yu ba dafa nekk kon dèjà désenclavement bi dañ ko bëgg a tàmbalee foofa li ñuy olof yi wax nag ku warul mburu te tudd ab dëkk bëgg nañ daal ñu xam ne cëri Makaw Diarra tey moo am la nañ ko ci sédd ba noppi keneen ku ñuy sédd doon ko ku ñuy ko sédd ndax alaaji Cheikh Mamadou Lamine Bara dafa waxoon wax ñu rëy jox fàtte ko mu dama fàtte bis di ko wax mbirum sàmm ak ndox mu fi mu àgg mu ne ma loolu mën naa bañ a am jiiri lapp ndax seq naa ko yow sama xarit nga loo soxla war bay maam moo ñaar ci Tuubaa balaa kenn daa war a séddu kon dèjà bu ñu demee bay séddu nag ba ñëpp xam ne séddu nañ ko fu mu law jam door faa jëm kon loolu xalaat bi ndax bu leen neexee jëmee fu ne waaye bu ngeen tàmmee jëmee si ko fii nag ñoo ngi leen ci sant parce que yéen a ngi rek ànd ceeg yéen ci lépp ci liggéey bi dana fii rek lan am duñ fi tuxu lu fi waaye def daan ko gis lu fi waaye defut yëg nañ ko duñ ko xuloo waaye jàpp nañ ko ay nit bi dëkk yoo xam ne xam nañ lañ war a xam xam nañ seen bopp am nañ fulla kon nag ñoo ngi sant ñëpp yoo xam ne daal jërë ngeen a sant bu baax it ak xalaat bi ak def gi fii kon nag service bi nee na ñu leen di dalal jàmm ne ñëw ngeen ci seen maam lu ngeen fi soxla nañ ko yëg wax leen fi ngeen di jaar ak na ngeen ko war a defee ba keroog ñuy taxawaat fii di ubbi ci kàttanu yàlla. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatuh jërëjëf.